war ngeen jàng aaye bi ba mën ko tari ca saasa mu yëgle ci jàngu ya ne yéesu mooy doomu yàlla jëf ya saar juróom-ñeent aaye ñaar fukk beneen yoon dinañu waxtaan ci mbirum ñi jëkk gëm te duñu yawut